ku xam condition invaincue xam ni. Nous sommes dans de difficiles conditions. Le président de la République avait mis en place une commission chargée de gérer tous nos problèmes. parce que pare woon na depuis le mois de février. ministère yi mu concerné ñoom ñoo ñoom ñoo deful liggéey bi. Mais depuis, il y a des lenteurs, surtout avec le ministère des Forces armées. Là, c'est le ministère des Finances. Dialogue si yoon moom ba ba mu àgg fu mu war a àgg mais instant bii nii moo ngi moo ngi euh, ministère des Finances. waaw globalement soo xoolee dàmpaay bi rek dàmpaay bi rek soo xoolee. Les indemnités font 5 milliards et quelques et on ne nous dira pas que l'État n'a pas les moyens. Nous ne sommes que 2000. ñu nekkoon ay deux mille et quelques ñu mu ñu mu ñu mu concerné deux mille et quelques la. fekk dañu amoon ay. nous avions des carnets de soins mais cela n'existe plus tout a été remplacé via une note de service et c'est un scandale. Ah, te loolu amul fen te carte à puce yi am ay jafe da ngay ñëw di bind sa carte. les cartes avec les puces sont problématiques la plateforme ne marche pas du tout. il y a un problème de réseau qui se pose. Ça peut prendre 72 heures. Que des difficultés qui font que certains perdent la vie.